dem ci leneen euh, mu mel ni Cheikh Bara Ndiaye ak Thérèse Faye niki démb lañ leen convoqué woon fee ci dikk euh, mu mel ni it bàyyi nañu leen ñoom ñaan ñëpp ñu nuyu ñu ñibbi si seen i kër waaye dossier ba yéegal nañ ko ba fële ci tribunal fi ñu toll nii nag amal nañu enquête bi ba pare euh, dañuy rek xaarandi fee ci tribunal ñu joxe fa ay information yoo xamante ne tukkee na ci boobu dossier tonto ci yow laay jiito Thérèse Faye ak ki nga xam ne mooy. Euh, Cheikh Bara Ndiaye euh, mu mel ni euh, gannaaw dikk yóbbu nañu dossier bi ci kaw waaye it bàyyi nañ leen ñu daal di ñibbi mu mel ni moom ñu ngi ko doon toppee diffamation ay foncier yoo xam ni neewoon na Thérèse fay moom moo ko moom loolee nag la ñu nekk di leeral ana fan la dëgg daal di féetee mais tonto Fall question bu ma lay posé rek ma xaw ci réer tuuti bu ñu porté waan nit plainte ñu dem ca yoon Euh, te dëgg gi feeñagul dañ daan mettre nit ki en garde à vue mais man li ma gis mooy Cheikh Bara dañ ko bàyyi mu daal di ñibbi këram ndax mën nga ma expliquer lu waral loolu. ok tey la droit wax boppam nag tey jii la droit décider wax boppam. Mm-hmm. yow kadaal politique nit ki mun laa jiiñ da nga ñu ko jàpp. wax da war a indi ay preuves. Mm-hmm. convoqué ko ñëw na. Mm-hmm. enquête nga leen. yóbbu leen tribunal tribunal mooy décider. droit ngi doog a dox Sénégal nag. man faruma ak ma sàmba faruma ak ma demba mhm. ku tooñ nañ la jàpp mhm. mais ni ñu ko doon defee dafa ñaaw mhm. nit ki ñëw na rek plainte nga ko diffamation ñëw nga arrêté ko def ko mandat de dépôt loolu te du dëgg teguñu ko yoon tey la droit da ko wax dëggam lii la droit lii la loi bi wax lii ñu def la loi bi wax wax naa la yaa def lii nga ma defoo loolu enquête nañ lu pare dem leen tel jour ngeen ñëw dem ci jugement dama dama la dama la tribunal am déet mais xëy rek tooñ naa la porté naa la plainte. Mhm. yaa jël sama or. Mhm. wala yaa jël sama jamaa. Mhm. jëluma ko mandat dépôt. ñu dem ba ca fin ba ñu tëj la yóbbu la mandat dépôt quatre ans quatre mois six mois un an. ñëw ni defoo dara. tey la droit doo ko wax. te lii nag moo war a jëm kanam. ak foo mën a bokk nag. ak foo mën a bokk. ci enquête bi parce que enquête bi gis nga bu defoon xam ni daf bu waxee ne mën a suur boobu. la koy dañ ko téye kuñ ci téye. ci diffamation da naa mën Mm-hmm. maa ko wax dama koy assumer. Mm-hmm. comme Bah Diakhaté li mu wax. Mm-hmm. ma ca meññee may may propos. amul preuve dañ ko jàpp. mais bu nee bu nee lii laa wax. am na ay preuve dama indi preuve yi wax mu leer ñun ndaw si li wax am na. mu ni amul ñu ne ko dama indi preuve ne amul. ñu dem tribunal ñoom ñëpp ku ne sa avocat ñu dem tribunal ñu xool. ku ne génne say preuve. yaa moom lii mu ni moomu ko yaa moom lii mu ni moomu ko fii la droit waxee dëkk bu njëkk yow pas de droit. yow pas de droit avec pouvoir politique moo amoon un dictateur un baron. mu jóg teg tànk bi fii teg loxo fii teg bopp bi di tëdd ci ñeneen ñi. bu fi ma Macky Sall nekk ku ñemee wax droit. devoir sax amatoo ko woon. da nga dem ba yow citoyen yi amatoo devoir li nga war a def sax doo ko xamante na nga ko war def nga def loo def jàpp nañ la. Macky Sall bu fekkee ne da nga fekk pneu bu nekk ci digg tali bi. nga àndale ko. ñu jàpp nañ da ko doon taal. gis nañ jàpp nañ ay xale yoo xam ni. gaa teg benn pneu ci digg digg at bi digg tali bi. ñoom ñu jël tali bi ko àndale ci vidéo boobu ñu ne da ko doon taal da ko doon àndale. ñu jàpp ko. waaw citoyen yi activité boobu fu mu amati léegi. amatul fu mu la amati. avec yàlla moo nu dimbali. bari na lool ndax yàgg na fi yàgg na fi douze ans c'est trop. quatre mille trois cent quatre trois cent quatre-vingts jours de pari ci Macky Sall. on a fait une erreur de relique 2019. par par des erreurs opportunistes politiques. mais gis nga. bu fi lii mu def ci réew mi dem ba jaxase police yi ak ak civil boo dégloo démb euh, euh, directeur euh, national de la police démb. Mm-hmm. nee na objectif am mooy fexe ba citoyen yi am jox confiance police kon am confiance amatu fa. Mm-hmm. la confiance elle na sa donne pas elle se mérite. Mm-hmm. est-ce que bu njëkk heure boobu ci ñetti ati Macky Sall yi benn Sénégalais amoon na mérite am confiance ci police wala gendarmerie parce que dañ dem ba jaxase leen ñoo bokk ndey ñoo bokk baay da ngay nekk policier ma nekk civil ñu bokk kër gi ma ma ma sa grand frère la wóolu du ma la ñemee. kon donc euh, lu normal la. loolu Cheikh Bara ñu bàyyi normal. Hmm. mais day dem tribunal su demee devant le juge na. mu wane li lii moo am bu fekk amul. dañ koy sanctionné. loolu muy dëkk. dañ koy sanctionné mais bu amee. beneen kii du kenn ko jàpp. mais beneen dossier muy génnaat ñu laaj ko fu mu ko jële mais du dossier boobu noonu beneen dossier la ñuy génnewaat état mooy génne loolu responsable état la bu boobaa. Hmm. moom li mu wax bu amee. bi responsable du kenn du ko ca mënal dara kenn du ko fa jàpp mun ñu ko fa jàpp. Mhm. mari euh, madame Faye. Mhm. bu demee nag. Mhm. ba fekkee am na état mooy jël ay responsable wutaat beneen dossier nag teg ko fa nag laaj ko lii foo ko jëlee ak noo ko amee kooku yow lu état la mais dossier bi moom kenn mënu ko cee tëj. kenn mënu ko ma madame euh, madame Faye. Mm. kenn mënu ko cee tëj. Ah, ci tëj kenn mënu ko tëj bi. mais Cheikh Bara mën ko ci tëj. mën nañu ko ci mm. ko ci tëj. waaye Marème kenn kenn tax kenn mu ko moom moo dañ koo jiiñ ni yaa am mu ni amul lu tax mu ni moo am porte naa plainte man moom problème est que foogoon ni bu fekkee dañ la yóbbu ci yoon yoon euh, bu demee ba defal amal say enquête ba pare euh, bu ñu jëlee dossier bi yéegal ko ci kaw rek yow mi nga xamante ne yow lañ porté plainte dañ lay mettre en garde euh, ngir xaarandi fan la dëgg féete ah, ah. man noonu lay demee mool nga tàmm loolu nga tàmm loolu nga tàmm loolu nga gis <laughs> te du dëgg loolu nga tàmm moom nga mos a gis hmm. loolu yow moom nga tàmm avec Macky Sall tout est possible yow benn benn droit ma fi amoon Macky Sall la woon. benn oto lañ defoon droit oto bi Macky Sall moo koy dawal moo koy conduire fu ko neex la koy jëmal direction bi yow yow rien d'autre que ça. xam nga tey am na lu gën a garaaw yow une plainte contre Karim Wade ñoom Karim Wade yaa may dégg. Mhm. conseil constitutionnel un magistrat. Mhm. ah conseil constitutionnel déposé na ne dañ maa diffamé est-ce que waxaat nañ ci. Mhm. dañ cee war a waxaat nag. juge boobu magistrat boobu. fu mu ne na jóg nag dañ cee war a wax parce que dafa porté woon plainte plainte ba dañ ko bàyyi dañ ko bàyyi mu niil. plainte warut a niil. lu toll ni conseil constitutionnel un membre du conseil constitutionnel ñun la dañ lay jox 3 milliards. nga porté plainte xaw ma un certain njaay la. nga porté plainte ça fait 3 4 mois wax waxuñu ci. Hmm. ci diffamation kii di porté plainte diffamation matul 24 heures ñu woo leen. ak lu mën a am. Mm-hmm. citoyen la. Mm-hmm. ak lu mën am. Mm-hmm. am na njaboot. ak lu mën am bu ëllëgee man su ma rombee damay xalaat jox nañ ko 3 milliards. feeg leerul moo bu ñu ko defoon tey dem bu ñu ko defoon tey jii président cour suprême. mu war maa jugé. damay xalaat jox nañ ko 3 milliards. sama xel ci loolu lay nekk. kon moom moo war a setal jox nañ ko 3 milliards ak jox nañ ko 3 milliards te ko koy setal tribunal la. dañuy activer plainte bi ñu dem citoyen moo porté plainte. citoyen moo am ay responsabilité mhm. moo fi ëpp doole ci Sénégal muy co cour ci conseil constitutionnel fa la nekk. mais bëgg naa daal. Mhm. bala ñoo changé cour bi de ko def cour constitutionnel. Mhm. plainte bi ñu traité ko. ñu xoolaat ko. mais yii mu gën a gaaw. pour que Marème Faye bi madame fay bi gën a gaaw. Thérèse Faye Thérèse gën a gaaw. loolu lay laaj. ayca am na solo Khalil ñu gis ni euh, demoon nañu woo leen démb fecc euh, di que ñu amalu enquête gannaaw enquête ba it euh, dossier bi daal dinañ ko yéegal ba tribunal. Mhm. gis nañu ki nga xam ne mooy Cheikh Bara ñu daal di ko bàyyi mu daal di ñibbi këram. Mhm. waaye dañ fi gis yeneen yoo xamante ni ku ci mel ni Doro Gueye. Mhm. bañ ko rek plainté ci saa si dañ ko mettre en garde à vue. Cheikh Bara Ndiaye mettre ñu ko en garde à vue dañoo dem mu def enquête bi bàyyi ko mu ñibbi. ñu yéegal dossier bi fecc tribunal di xaarandi. Mm-hmm. loolu it euh, ban gis-gis nga ci am. ñaari cas yi ndeyaas su bokkul. Mm-hmm. ki lañ koy toppee. Mm-hmm. dafa def escroquerie la def euh, je que. xam nga Adama Faye la euh, de Adama Faye ah, dinaa ci dikk léegi. <laughs> loolu la def uh-huh. te la ca ëpp xaalisu jàmbur la ko yoreel. ay yooyu moom ñaari cas yi bokkul. kii nag nit la diffamé. te daf gis nga diffamation bi ñuy wax nii. Mm, bu fekkente ne ku wax tamit nit la comme ça mm. par exemple nii la war a demee mm. euh, boo waxee par exemple ñu ne la da ngaa diffamé mm-hmm. ci ñi nga xamante ne waxoon nañ ko fi dem ci lanceur d'alerte yi mm-hmm. kon naka ñoom la ñu war a mën a def mm-hmm. ba mucc ci li nga xamante ne moom mooy diffamation parce que loolu am solo lay doon waaye li ci mënti doon rek mooy que ne li li xew démb je pense que man li ma jàpp en citoyen en tant pour joxaat nit gëddam waaye tamit en tant joxaat nit ne moom mooy le justiciable li nga xamante ne moom mooy ak ak yelefam parce loolu yëpp da ci am mm-hmm. mooy que yu mel nii am na loo xamante mm-hmm. du lu garaaw garaaw tolluwut na toll boo xamante tey ji war mm-hmm. nañ cee mën a tëj nit di xaar ñu koy euh, enquête ak muy dem ci ay mois et des mois pour génnewaat ko mu perte ay temps yooyu yëpp day delluwaat si li ma doon wax rek l'efficacité de la justice ñu xoolaat ko bu baax a baax parce que nag bu fekkente ne ñaari nit la ci am dëgg ci sa mm-hmm. kaw mm-hmm. te duñ ci def loo xamante ne tey ji am na mm-hmm. euh, Fall wax na ko sànq ne loolu nga tàmmoon mais parfois dañ ko doon gis ci ñi nga xamante ne bu arrangé woon wala ñu bokkoon ci nguur gi. te mënuñu mhm. koo ñàkk a def. Mhm. gis nga nañ leen ko doon def gis nga l'affaire Téliko ngi nii ba tey. Mhm. moog ma Madiambal Diagne. gis nga na mu mujjee ba tey te mu ngi nii ba tey di dox ay soxlaam. te kenn dara fekku ko ca. leer na ne loolu bu fekkonte ne keneen a ko def ci nguur googu noonu kon tëj nañ ko. kon ñoom xamoon nañ lan moo droit mais dañ ko doon utiliser. parce que ka nekk ca kaw ka nekk ca kaw jiite woon. ku dem ba xalaat a def loolu en tant que yow njiitu réew wala en tant que ministre de l' intérieur ba nga xamante ne. Mhm. yow yaa war a teg nit ñi ci yoon. Mhm. jënga wàcc ci yoon. Mhm. je pense que ku war kenn waru xaar ci moom mu na ku li nga xamante ne wax na ko donte bu fekkente ne xam na ko. démb moo ngi koy naan ku ma xam Sénégal. xam ne lépp lu ma wax du ma waxantu am na fu ma ko teg te am na lu ma ci leer donte am na lu ko ci leer am na lim ci xam dama yàkk dama jàpp ne. Mm. waru ko wan wax. te coo waroon noppi te xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg am na loo xamante ne. Mm. mënta romb année 2024 bi ba jeex te leerul ñëpp. parce mm. que ci loolu lañ ne kon dafa tooñ. mën naa dafa tooñ parce que am na loo xamante ne bu fekkente ne noonu lañ jàppee ne moom mooy diffamation ci loi bi. Mm-hmm. man jàpp naa ne dafa tooñ. te képp ku tooñ comme ni mu ko waxee. Mm-hmm. dañ laa war a tegaat ci yoon. Mm-hmm. mais am na tooñ yoo xamante ne. bu fekkente ne da nga ànd ak nguur. di war koo moytuloo yenn yi. Mhm. yow yaa ca war a njëkk di ko di ko moytul sa bopp loolu pour mhm. permettre leen ñoom. Mhm. ñu am ñu mën a doxal. parce que ñëpp xam nañ ne diffamation lii la. yow lii nga xam ne xam nga ko ci nit ki. am na loi bu ñuy euh, préparer pour les lanceurs d'alerte. yow xam nga loolu. xaaral négal ba loolu pare. bu fekkente ne mën nga ko wax mu am lu la protéger. bu fekkente ne mënoo xaar loolu. seetaanal ba nguur xam ni muy mucceeg ñooñu parce que ñooñu dañoo a xamante ne mhm. ay jafe-jafe ngay indi mhm. yeneen militants yi comparant ku ci mel ne Azura gis naa ko muy naan mhm. Sonko na xamee ay nitam lii la koy jural te ñoom war nañ mën a moytu yi nga xamante ne ay sew-sew lañ ñu ciy tab bi pour permettre wàllum yoon nit amu ca euh, sama nit amu ca waaw sama nit amu ca ñoom ñoo war a moytu ci tab ci yenn erreur yi te bàyyi yoon def liggéeyam te bàyyi nguur gi saa yu doxalee ba agsi foofu dinañu lijjanti ñu war a lijjanti waaye dama jàpp ne Cheikh Bara comme ni ma jàppee ne treize euh, fay treize fay dafa juum euh, wala jàpp ma dafa juum sax laa bëgg a wax dafa yàkkam yàkkamti ci ay plainte mhm. parce que mënoon na xaar rek mhm. ba xam lu muy mujjee moom bu ñu saytoo ay mbiram mhm. ba xam ne liñ koy waxal nii dara amu ca la yoroon gestion am lépp jaar na yoon amut benn amalgam ba ca am ku ko ci waxal lu ci jaarut yoon moom bu la yóbboo ci justice dafay neex waaye nag am na loo xamante ne tey jii bañ bu ñu joxee Cheikh Bara li nga xamante ne ne ko defoo yoon daan ko ci ay li nga xamante ne diffamation la ndax ëllëg bu ñu saytuwaatee ay dossier ba tegaat ko gis ne la Cheikh Bara daan wax dëgg la dana doon loo xamante tey jii dëgg danañ la jox dëgg waaye dootul dootul saf dëgg parce que mhm. day mel ni mhm. euh, comme lii waxoon na ko mais dafay mel ni comme waru ko wax mhm. yaa ngi comprendre. Mhm. mais Cheikh Bara wax na loo xamante ne am na mais waru ko wax parce da koo diffamé. Mhm. loolu rek lañ koy xool waaye mhm. lépp lu ci mënti leer. dina leer incha allah. mais nag waa Pastef surtout. ñi nga xamante ne nañu moytu yenn yi nga xamante ne tey jii. da leen di jural ay ay ay jafe-jafe gis nañ ko ci euh, faal moomu. ñu dëgg nañ ci sax gis nga yu mel noonu nag. ñi nga xamante ñoom ñooy waa Pastef xam nañu ne ñoom ñoo bëgg yoonal. te képp ki nga xamante ne def nga ci loo war a def dinañ la loo xamante ne war nañ koo mën a moytu bu baax xamante ne war nañ ko war ay ca muy lan xam nga man sax dama am question pour yow nag waaw waaw euh, dama dégg mu ni hmm. euh, Cheikh Bara dafa tooñ euh, ma déggit mu ni Marie Thérèse Thérèse fay dafa yàkkamti maanaam dafa yàqamtee porter plainte mënoon naa xaar ñu daal di xool moom saytu ay mbiram état def liggéeyam ngir xool ndax amul loo xamante ne luubal na ko wala yenn ci ay foncier yi ñu koy jiiñ ndax moomu ko euh, mu ni it Cheikh Bara dafa tooñ maanaam dafa yàqamti waroon naa xaar ndax ñu ngi doon programmer benn euh, pour lanceur d'alerte yi mu waroon na xaar ba boobu wala sax mu toog seetaan loolu it euh, ñaari yooyu bëgg naa nga dikkal ñu ci laataa ngay ñëw ci sa kii bi Cheikh Bara hmm. mais fi jaare warul jaare foofu li gën na yomb mooy mu dénoncé ko OFNAC a vrai que OFNAC bi ñu yor nii amul crédibilité. Mhm. ndax gis nañ fi def def yëpp. Mhm. mais li gën na yomb. mu mhm. dénoncé ko OFNAC. su ko dénoncé woon dañuy toog rek femme day toog rek ñu woo ko OFNAC. woo Cheikh Bara laaj ko. mu wax dem ñibbi ñu toog ay fan woo femme bi. Thérèse Faye Thérèse Faye. yaa ngi koy génne kii ni ko lii ak lii ak lii ku ko moom. foofu la foofu la diffa àll xam nga diffamation lu tax ma ni moo tooñ diffamation la diffamation moom ci droit sénégalais moom da tooñ boo tooñ na lu tudd mais mën na ko dénoncer ci OFNAC su ko dénoncer ci OFNAC lay gën a yomb moo tax li nga wax rek li mu wax rek laay ànd ak moom ci booy yi Pastef yi gars yi Pastef yi gis nga nañu moytu seen bopp bu baax moytu seen bopp mooy lépp lu ñuy wax na nekk lu leer te ñoom amuñu droit être insolent wax dëgg yàlla fii ñu toll. Mhm. ay référence lañ war a doon. te mhm. loolu dérive ndaw am na ci mais du ñëpp. Mhm. fii ne ñoom boo xoolee. lépp lu dëgg duñ ci wax duñu saaga duñu xaste mais groupe boo gis nag am na coo xam ne noonu la ñuy mel. mais ñi ci des nga xool ñi ku leen di ñaan ni ñoom ñoo nekk au pouvoir léegi. comme ñoom ñoo nekk au pouvoir nañuy corriger lu ñu wax nañ ko soigner. amuñu droit dal ci kaw kenn te amuñu preuve su leer suñu amee ku preuve bu dañu dal ci kawam. Mhm. seen objectif fi ne mooy. Mhm. na dëkk bi dem jaar ci yoon. Mhm. ñu ko jaar ci yoon nag ñun ñii ñoo ko jaar ci yoon fu ñuy jaaree mu ñu ko jaar ci yoon te ñuy nekk ci biti les milliardaires la. jël suñu alal. yàq suñu réew fukki at ak ñaar. lu ne am fi. quatre-vingt quatre-vingt-six morts. foofu lañ ñu war di wax ñoom. na leer na leer ku nekk la nga moom. la nga moomul nga delloo ko. mais dénonciation am na. OFNAC a ngi fi. Mhm. nañuy dem di dénoncer OFNAC li ñuy gis. donc ku mu taxaar la fekk changé wuñu loi bi. Mhm. ku ci ku ci wax nit même bu dee dëgg. Mhm. da lay yàpp. dëgg bu loi bi tegeewoo sax bu la neexee booy dénoncer nit nga jaaree ko OFNAC wala. waay da ko dénoncer OFNAC loi bi loolu la wax. tu ma gisee booy bi takk takk weeram yi. ma ne ko ma dem mën naa def OFNAC nii gis naa ko mu takk ay weer yoo xam ne weer yi moomu ko. léegi dana ko dénonciation of nag da lay enquête. Mm. ba pare woo ko enquête ko moom moo weeri moomul weeri. ndax après dañ naan diw bii moo ñëw wax fi ni yow lii. wala dañ koy def ci suuf anonymat lay doon. d'accord. waaw bamtuwaat ko mbokk internet mais man bi may porté plainte Diop mhm. dama bind sama tur bind sama parti te la ma wax damaa leer. damaa jaar ci ay loi ay article teg ko ni Diop si mii amul droit ñu ko état di ko jox marché parce que député la. d'accord foofu laa ko tegoon man. am na ko ci loi laa ko teg. Mhm. ci ci règlement intérieur assemblée bi def ko ci droit même dem ci a jàpp. Mhm. boobu. joxe mhm. article conseil constitutionnel bi. joxe règlement intérieur assemblée. am na solo. ni dañ ko war a ko man li ma leer ni suñ ko toppan li li of naa ko waxoon bu ko mhm. mais ma mhm. ah? mhm. recommandation yi mu defoon. su ko buñ ko toppoon Macky Sall toppoon. parce que moo yor kuddam nag ak boppam fu nekk la koy teg. moo ko waxoon mais kudd gi ak dafa naa amputé nañ ko yoratu ko. loolu mu yoroon bu fekkee ne la ko of waxoon la topp. tey Diop si du nekk maire du nekk député waaye et puis dañ ko wax mu remboursé. Hmm. xaalis bi ko état fay yëpp. Hmm. kon dina am un milliard bu jox ci benn jàkk wala benn mosquée. déedéet du ko am. mais hmm. rien trop tard. nañ dem rek. am na solo tonton Fall dañuy àddu dem ci leneen coowalum ah, plainte bi diggoon dox ci diggante may sa Faye ak ah, ki nga xam ne may sa ah, Faye benn jeune la benn informatique informatique la. fee informaticien la fee ci TFM.